alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen di ndokkeel di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel aalamal islaamiya fu ñu mën a nekk ala wajil basita di ndokkeel julli ñëpp di sant yàlla mu ñu may ñu fekkee ko beneen yoon ci at mii di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee at mu nekk te at muñ nekk yàlla nañ yëg ne yokk nañ ci mbëggeelu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ku ko bëgg topp ko te ku ko topp texee comme ni ko yàlla waxee qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah su fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko topp nag yàlla bëgg la ku yàlla bëgg nga texe kon bu ñuy gàmmu di nettali ay jikkoom pour amee mbëggeel ci moom moo tax waaye topp ko tamit moo tax waaye texe moo tax te texe weesuwut yàlla bëgg la kon nag yàlla nañ ca amee mbëggeel ak yàlla feete guñ koy feetee nag njëriñi doomu aadama lépp la bés bi nga xam ne walla ci weer wi nga xam ne ci la juddu muy weeru rabiil awwal boroom xam-xam yi walla ñu bëgg yonent yàlla muhammad di ko tagg di ko feetee fu nekk du woon jëmmi abdoulaye kese doomi amina walla abdoulaye mi nga xam ne mooy baayam ndeyam di amina seen doom jooju jëmmam jooju moo tax ñuy feet waaye déedéet waaye lam àndaale moo tax ñuy feete bés yi mooy njub la àndaale mooy yërmande la àndaale mooy njëggal la àndaale moo tax Ahmad Shawqi ba mu koy waaye walidal huda wal kainaatu diyaau wa famu zamanu tabasharun nee na ki nga xam ne mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba juddoo ci la lee ak njub juddu parce que njub la andi njub googu nga xam ne yàlla ba mu wàcce alquran lim njëkk tudd mooy njub hudan lil muttaqin alquran gii kat li tax mu andi ko mooy njub la ñeel ñu ragal yàlla kon yàlla ñu yàlla boole ci mu taqiina yi njub nag du lu yomb buñ demee ba yàlla di xërtal ab yonent muy topp ko xam ne du yonent ngir sàkku njub kon njub lu foor la hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda ndax duma la topp nga xamal ma li yàlla xamal ci njub kan moo doon wax loolu yonent moo ko doon wax waaye du yonent bu simple de koo xam ne ci ulul azmi min rusuli la bokk muy seyduna Muusa alayhi salaatu wasalaam topp koo xam ne du yonent aboliw yàlla rek muy xadir di ko ñaan yàlla may ko njub kon lépp lépp rek ñëw mooy ñi ñi tegu ci njub rek njub boobu nga xam ne jinne yi moom lañ déggoon inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi ñun de dégg nañ alquran ju yéeme ana lu ko tax a jóg mooy oo nit ñi leen ci li nga xam ne mooy njub kon yàlla nañ yàlla moy njub waaye mu ñëw pour yërmande moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo tax wax ne ana rahmatul muhda su fekkee yàlla am na kado bu mu wàccee jox ko jaamam yi mu ne kado boobu mooy man mooy jë mooy maay jëmmi maay jëmmi njub maay jëmmi yërmande moo tax Cheikhu Tidiane bu mu koy tàgg nga xam ne moom lañ doon jàng avant ñu julli gee allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya yow yàlla yàlla nga julli te sëlmal ci ki nga xam ne mooy jëmmi yërmande borom ji yàlla su fekkee yërmande la jëmm ju ko jëmmal mooy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ci jëmm yërmande jooju yàlla defoon ko moo tax yàlla na ko fa bima rahmati min allahi linte lahum mu ne ci yërmande yàlla gi yàlla def moo tax nga mën a nooyal sa ba ñi la la mën a diisoo ak yow walaw kunta faddan xaliza alxalbi lam faddu min xawlik soo nekkoon ku dëgër ku tàng xol ñi la wër ñi kenn du la ci wër ñëpp lay sori waaye loolu jëmmi yërmande gi mu doon moo tax gannaaw jëmmi yërmande jooju moo ñëw dafa war a leeral àdduna fekkoon na àdduna ci lëndëm lëndëm gu metti lëndëm mi lan la mooy lëndëm mu tooñ lëndëm mu jaay doole looloo amoon ci àdduna bi lëndëm nag waasiwut nga am doom bu jigéen suul ko xam nga lëndëm gën a rëy loolu ak doom nu mu neexee ba yàlla di net li wa isal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat arab yi li ñu xamoon mooy bu ñu amee doom bu jigéen daf dañ naan daf leen teg gàcc ko nañ gas suul ko wala nañ ko rey mu jeex wala sinon beneen góor dana ñëw takk ko wala mu génn ñi def ko loo xam ne jaadul ma am ci gàcc wa ida bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim yatawaara min alqawmi maa bushira bi ku ci kuñ ci na ko sa soxna am doom doom doom bu jigéen nga commencé di laqatu ngir liñ la wax neexu la kon fa lañ tolloon waaye ba mu ñëwee jox ko gëddam jox ko axaqam na walahunna mislu ma mislu lazi alayhinna bil maaruf wali rijaali nasibu bi ma kasabu wali nisaai nasibu bi ma na góor ñi lépp luñ def am nañ ci cër jigéen ñi lépp luñ def am na ci cër wala mu dem ba ne sax waxtu wu dogalee dara góor ñi ak jigéen ñoo ci am képp amul ku ñu tànn nit ñi ñoo ko war a def kon ñëw na yemale diggante góor ak jigéen ana loolu kañ la am keroog ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo loolu la am waaye keroog ba mu juddee mbépp buur boo xam ne da ngaa mbaru woon jàppee sa bopp yàlla def nit ñi ay jaam yoo war a liggéey loolu comme nu la neexee jour boobu la dog jour bi mu juddoo ci la dog te ku déglu histoire ñuy nettali Kisra bi nga xam ne nguuram gi ñaata at la taxaw keroog ba mu juddoo la nguur gi jeex ña doon jaamu safara keroog ba mu juddoo la seen safara sa fay ña doon jaamu ndox yaakaaruñ yàlla yaakaaruñ dara lu ndox keroog ba mu juddoo la ndox moomu ngis kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom lañuy ñuy feetoo nag di ko tatagalee ci ay bayti yoo xam ne amul daray sirku lu ci nekk lépp luy yëkkati gara maqaama yonti yàlla muhammad waaye du ko àggale mukk ci garaat boo xam ne dafa àgg ci garaatu yàlla kon na ñuy wax na ñun dañoo ëppal ci yonti yàlla muhammad dañoo jàngul ñi li lu nit ñi bind fenn fi ñu ko yóbbee ci garaatu la waa ji jàng dama daa at wa nasara fi nabihimu waxkum bi ma chita mat anta mat xan fii wax waxtaki mi waxtu wooy tagg yonti yàlla muhammad gannaaw waxoon ne yàlla rek lépp lépp garaat bu rafet rek mën nga koo rangal te ci loolu lañ nekkoon daaw tàmbali woon nañ jàngat li nga xam ne min qabliha te fi zilaali wa fi ba li nga xam ne mooy fatra bu njëkk bi jeex ñu war a dugg ci xaside bi nga xam ne mooy tahniatu rabi bi madhati shafii bil mantiqi l badi abria mu amali ku ko way mooy kan Mouhamad di Ibn Sidi moo ko way nekk Mauritanien juddu 1200 dee la juddu gaañu 1265 kon nga gis ne kon 63 ans la dund muy atu yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi bu ñu demee ci atam jant mi ngi nekk 1787 gaañu 1848 mu tolloog 65 63 ans la dund muy atu yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekkoon nag di tiijaan di woykat di défendre l'islam di défendre yonti yàlla Muhammad waaye di défendre tariqa tijaaniya dem nañ ba tuddee ko alxasaanu tariqa yonente bi amoon na benn waykat mu xasan ibnu thabit moo doon way yonente bi di ko defendre di défendre l'islam kii nga xam ne mooy mouhamad baddi ibnu sidi moom noonu la meloon ci tariqa tijaani waaye noonu la meloon ci yonente yàlla mouhamad di tagg tariqa tijaani di ko defendre waaye noonu la meloon tamit ci yonente yàlla di ko tagg moom moo bin xaside bii nga xam ne moom lañ mujj jàng muy tahniatu rabia bi madhati shafia bil mantiqi l badi abri mu amali kon xaside bi incha allah moom lañu fa seeni jàngat ba fu yi fi yàlla yem loo rek ñu amele ko foofu di ñaan yàlla lépp loo xam ne ay leer la rek yàlla nañu ko yàlla defal lépp loo xam ne ay xéwal la yàlla nañu ko yàlla defal ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sénégal gi yàlla na fi yàlla wàccee naataange ñu ngi ci nawet yàlla nañu yàlla may ngóobe fu mu barke yàlla nañu yàlla may ngóobe fu mu barke yàlla yàlla may ngóobe barke yàlla na fi yàlla wàccee fi jàmm wàccee fi xéwal wa ma zalik alallahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh